waaw gannaaw ba nga xamee ne Vladimir Poutine dem na fële ca Mongolie bëri woon na coow lool waaye dafa am ñaari ñaar eh, xam naa ne sax bi may njëkk a ñëw mooy ci vidéo bi fii Vladimir Poutine daf ci doon wax xam naa ne ñii nee nañ day tooñ la ci jublu ñii ne ci tooñ mais daf ci doon expliquer bay wax ne moom élection Amérique yi bii ñu dëgmal moom mi ngi jàppale Kamala Harris dañu bëri dañ ne dafa jege Donald Trump. élection yi yële passé woon nag dañ ne woon Donald Trump la àndaloon am na ñu ko doon wax mais li jaaxal nit ñëpp mooy lan moo tax mu ànd ak démocrate yi te àndut ak républicain yi te moom xeetu politique bi mu aw yor boo ko doon méngale républicain yi la gën a jege ka démocrate yi loolu nag ba na ñu bëri ñi commentaire ñi nga xam ne géopolitique bi ci la ñuy suivre gis nañ ne au fond. Poutine daa bëgg a daa bëgg a influencer euh, élection Amérique bi loolu la si jublu mais àndulut ak Kamala Harris depuis ba mu ko defee ba léegi nag démocrate yu ba bëri ngi génn di ko tontu quoi di wax ne àndut ñoom bëgguñu daal Poutine yëkkati kàddoom ne day ànd ak Kamala Harris parce que loolu day day tax ñoom ñu ñu gën a perte ay points parce que loolu day wane ne parce que loolu day wane ne guerre bi nga xamante ne si ne. Euh, Euh, mi ngi ci moom Poutine diggam ak Ukraine euh, kon day mel ne kon li muy def li li jàppale gi nga xam ne moom la joobaay doon di jàppale waa Ukraine moom moom naqari ko daal loolu léegi nag ñi nga xam ne dañuy yëngu dañuy nekk ay analyste politique ak ñooñu affaire bi daf leen jaaxal Poutine naka la Joe Biden doon mën a di jàppale waa Ukraine ci ay xaaris bu bari ñee di républicain yi. ñoom ñoo koñe woon Joe Biden ne ko xaalis bi ngay joxe dafa ëpp ñu jàppale ba Donald Trump wax ne moom su jëlee kii sax geer bi day dakk nangam wax ci Poutine sama nangam la danaa négocier ak moom moom mu yëkkate ay kàddu wax wax ji loolu moo jaaxal analyse politique eh, yu bari eh, Poutine nag loolu stratégie la waaw c'est mon avis man personnellement ma jàpp ne stratégie la bu Poutine teg pour def benn benn influence ci élection américain yi parce que depuis ba mu ko defee ba tey gaa yaa ngi ciy wax lu nekk euh, photo bii nag mooy ministre de la justice bu bu Amérique bi moo nekk photo bi moom euh, organe de presse bi nga xamante ne si ne ñu koy wax RT bu bu la euh, bi bala bi Vladimir Poutine yëkkatee kàddu googu moom sax génn na ba wax ne lu toll ci dix millions d'euros wala dix millions d'euros waaw nee Euh, presse su organe de presse bu bu russe bi daf ko yëkkati jox ko yenn organe de presse yu nekk ci Amérique pour ñuy def influence ci élection yi en plus tamit <clears throat> di def xeetu propagande boo xam ne dañuy daaneel ñoom ñoom ñoom ñoom démocrates yi ñoom ñoom Joe Biden ak Kamala Harris moom loolu la takkal ba ne sax danañ jël bu danañ jël ay sanctions teg ko teg ko télé bi euh, télé bi te télé bi boo xoolee sax même Union européenne. ñoom it defoon nañ loolu yëkkati woon nañ ay daan sanctionné ko ah, ne moom tey day day day yëkkati xaalis di ger yenn ci presse yi nekk ci réew yi di def influence ci yenn élection yi ah, Amérique nag koo ko xam chaque élection su amee problème ku ku mu arrangé wut wala ku bëgg a créer polémique ñaari réew yi la koy jiiñ eh, Russie la koy jiiñ wala mu jiiñ ko Chine ñaari réew yooyu lañ koy jiiñ parce que ah, ministre de la justice bi nee na sax Euh, ñoom ñi ngi créer ay ay yu garaaw yoo xamante ne si ne pour fexe ba pénétrer dugg ci seen biir euh, logiciel yi pour pour mën a yàq seen élection yeeg taxal na ko daal moom ministre de la justice taxal na télé waa nee na dix millions d'euros euh, yëkkati na ko ci ci xaalis jox ko ay organe ci biir Amérique pour ñu koy influence te loolu Poutine Poutine moo ci ànd. fan yi passé nag bu ngeen amee ab seetlu. Euh, fii nga xam ne mooy Mongolie Russie demoon na fa waa Russie muy Vladimir Poutine demoon nafa mu jur coow lu bari ndax da danañ ko jàpp ak duñ ko jàpp jawe tam dëkkandoom mooy Chine parce que diggante Chine ak Russie ñoom ñoo seq Mongolie Mongolie yaakaar naa seen taux de population yi euh, xayma wu ko waaye trois millions yi daal ci lañuy tool ñoom bari wuñ nga xam ne lenn lu bari ci seen économique partenaire partenariat. ñaari réew yi ñoo ñoo leen ko yoral muy Chine ak Russie moom ñoom waa Mongolie eh, ndax booba tamit ca dëkk eh, ci seen wet eh, Chine ma nga doon def sommet Afrique Chine ca wet ga it Vladimir kii nu ñu koy waxee Vladimir Poutine quitté Russie dem mongoli moom tamit kon zone boobu daanaka ci wàllum géopolitique boo xoolee lu jëm ci wàllum diplomatie. Eh, ay xaatim yu bari te lépp lenn waralu ko rek lu dul lu jëm si wàllum écono économie bu fekkee nag loo xamante ni si ne eh, dafa demee ci diggante Chine ak waa Afrique sommet ba nga xam ne moo amoon ci diggante Chine ak Afrique yàgg na diire nay fan buñ ko xaymaa nag ci waa Chine ñoom nee nañ lu toll ci cent cinquante milliards de euros eh, ñoom échangé nañ ko seen diggante continent Afrique ci premier trimestre bi depuis de depuis boobu bañ fi ñëwee ñoom ah, ba deux mille vingt quatre bii waaw ñoom nee nañ lu toll ci cent cinquante milliards de euros euh, investir nañ ko biir continent wu Afrique ci ay travaux yoo xam ne ay stade ay yu bari bari bari ak seen ay investissement kon nga xam ne euh, defagun nañ ko gannaaw bi nga xam ne somme ba jeex na. jàll na ñoom it nee nañ danañ ca doggalewaat yokkaat ca lu toll ci quarante cinq euh, milliards waaw d'euros quarante cinq milliards d'euros ci cent cinquante milliards d'euros yi danañ ci yokkaat quarante cinq milliards d'euros yoo xamante ne si ne waa Chine danañ ko jëlaat yokk ko ci euh, li seen euh, li nga xamante ne si ñu ngi koy jëflante seen diggante ak Afrique ci ak jàppale lu jëm ci wàllum agricole lu jëm ci wàllum énergie renouvelable lu jëm ci walum euh, ñi nga xam parce que ku nekk ak euh, état bu nekk bu fa ñëw rek ak accord ya nga xam ne moom ngay seq ak waa sin loolu loolu c'est très important ñu ñu ñu ñu ñu ñu cité ko ci tënk rek mooy sin daal sommet bi nga xam ne doon na ko def euh, def yenn lu mel ne France lu mel ne Amérique ak yeneen yu mel ne Australie bëgg a bokk ci première partenariat yi nga xamante ne si Euh, sur le plan économique war nañ koo dox seen diggante ak Afrique te investissement yi bari na ndax euh, euh, boo xoolee ñi investir ci àdduna bi ñëpp daw nañ ñëw si Afrique di am lëkkaloo ak état africain yi loolu moo moo moom bokk na ci li nga xam ne moo wundu sommet bi nga xam ne Chine organisé na ko ak waa Afrique nga xam ne réew Afrique yëpp demoon nañ fa dajee fa ñu exposé sa ñoom seeni produits def fa seeni négociation état bu nekk nag bankaan nga say kaake ba dellu kon tey ci samedi bi la président bi war a dellusiwaat Sénégal yaakaar naa. mën a dugg ci sommet bi génnaat ci noonu duñ wax lan moo lan la ci Sénégal lan moo ci ay tànkam discours président ba Bassirou Diomaye Faye bi kon dégg ko ko discours première dame bi ci protéger jigéen ñeeg yu bari ci éducation ndaw ñi dégg nañ ko. mais en tout cas li am importance te ñu mën ko faa wax rek mooy gouvernement ba fan demadi lu jëm ci wàllum agriculture soxal na président bi lool ci ay matériels yoo xam ne manqué nañ ko te mbayum mbayum léegi mi ku bëgg a am autosuffisance alimentaire da ngay daw jublu ca euh, soxal na ko ak ci yu yoo xam ne ay euh, projet la yoo xam ne yu jëm ci wàllum transport routier yo xam dana gëna mëna yombal digënté région yeeg région pour mu fasante ko lolu ma nga fa ak lo xamanteni ne si ne télécommunication la lo xamanteni ne si ne technologie la euh, ñu fexé ba loolu lépp suñu digënté ak siin ñu man ko am tamu mu bañ doon négociation yu ñëk yañ daan def nga xam manam dañuy dik exploiter indi seen nit liggéey dem suñ fi ñëwé dañuy and ak ndawi Sénégal yi ba paré nak bayyi fi xam-xam bi ñu mën a continuer nga xam ne maanaam euh, jël matériel bi rek tollootuñ ci léegi dañ koy booleeg am xam-xam bi nga xam ne bu ñu fi toogoon cinq ans buñ demeet dana permettre ñun danañ mën a doxalal suñu bopp te yaakaar naa ku nekk loolu nga war a euh, lijjanti xam naa nag vidéo bi sax dana wane li ma doon expliquer ci lu bari mais en tout cas xam naa ne euh, suba ci dimanche ji lundi président su njëkkee dana dana dana dana def benn discours waxtaan ak sénégalais yi wax lan la yóbbu woon wax lan la fa gis wax yan accord parce que loolu euh, daana am ci jamonoy Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade su daan mas a def benn tukki su daan dikk rek su taxawee si aéroport des fois dana wax yan xeetu négociation lañ fa doon waxtaanee donte dossier bi du ci dugg sax au fond mais dana ci expliquer tuuti loo xam ne dana xaw a leer ci bopp sénégalais yi. Macky Sall nag bi mu fi nekkee moom yooyu daaw ko def waaye kii nag su ñëwee mën naa ko tuddee discours à la nation lay tudd boo xam ne dana tombeek bu boobaa ci semaine yi ñu dëgmal dana dana tombeek li ñuy tuddee déclaration politique générale beeg discours bi président bi loolu yëpp day wund ñoom li nit ñi doon coow yëpp danañ ci dëgmal nga xam ne léegi nag dañuy naan a ah, ñun kat gouvernement biñ samp des yi taxaw nañ lu bari ci justice bi ñi ngi en vigueur léegi nag fii lañ bëgg a jëm. waaw loolu bu boobaa ci semaine yi yi semaine bii ñu dëgmal lépp dana leer euh, déclaration politique générale bi ñu coow euh, mën naa am waaye nag li li wérta daal mooy président bi dana ñëw tey ci samedi ji yaakaar naa su su su su su dimanche ak lundi moom bu boobaa dana leer waaw euh, xam naa fi ñu koy tëjee daanaka mooy fii dañ ko fàtte woon mooy France actuellement mook Sénégal moom dañoo xaw a nuroo dañoo xaw a bokk jikko parce que bu ngeen fàtte élection union européen ba mu jàllee Macron daanu ci daanu yu metti daa jeex rek mu daal di tas assemblée nationale organiser waat ay élection waaye taxut mu am ca ndam gannaaw boobu nag lii nii ci ay parti la parti yi ku ci nekk da ngaa jëloon benn ci kandida pro euh, proposé ko Emmanuel Macron pour ne ko kii mooy nekk suñu premier ministre démb rek dugal naa Moustapha Diop bu Walfadjri vidéo bu mu ko doon expliqué mais dangay gis ne ci proposition boobu parti bi nga xamante ne si ne moo jëloon quatrième euh, moom la Macron euh, jël ab candidat am ñu koy wax. Euh, Michel Barnier la tudd yaakaar naa damay tur bi daa xawta maîtriser yaakaar naa Michel Barnier moo nekk nii waaw léegi nag ñoom lu lu ëpp ci population France bi nga xamante ne si ci côté gauche bi lañ ñoom nee nañ mënuñoo gagné élection yi ba pare ñuy jël koo xamante ne si ne ci beneen côté bi gagné wut ñu koy fal parti yi ci nekkoon nag dañoo amoon kuñ proposé Macron Macron nag gannaaw ko moom kii la kii la mujj tànn. waaye tey ñoom Jean-Luc Mélenchon su ma ko waxee xam naa da ko xam moo fi ñëwoon nekk ganuk Ousmane Sonko moom bokk na ci ñi jiite manifestation bi te nee nañ sax li ñuy tuddee motion de censure bi ñuy tudd ci Sénégal gii nee nañ ñoom danañ ko utiliser proposer ko ngir daaneel gouvernement wu euh, Michel Barnier mi waaw moom nag du du du ko ndaw 73 ans la xam naa ne expérience am ak relation bu mu yàgg a def. négociation yoo xam ne yàgg na ko def xam naa ci la Macron euh, sukkandiku ba bëgg waaye daal coow topp na ko ci nomination guñ ko nommé tànnagul nag gouvernement waaw moom daal lañ defagul euh, premier ministre mu remplace Gabriel Attal waaye nag euh, te bëggul kenn ko ku ma xam man ku ma gisagul ñu ne kii mooy ministre ki mooy ministre mais en tout cas tey ci samedi ji moom français yi waxoon nañ danañ génn manifesté wu manifestation damaa xamul nag jotaguma ci information yi liiraguma ko moo tax mënu ma cee wax lu bari mais en tout cas moom mi daal lañ tabb mu nekk premier ministre actuellement bu France waaye en tout cas jur coow waaw motion de censure bi ñu tudd fii ci Sénégal daal ñu ngi koy tuddaat fële ca France kon France euh, coowul politique duñ ko tuddee crise politique quoi parce que coow yooyu ci diggante assemblée nationale ak palais yooyu yàgg naa am. waaw léegi nag ñoom lu lu ëpp ci population France bi nga xamante ni si ci côté gauche bi lañ ñoom nee nañ ñuy jël koo xamante ne si ne ci beneen côté bu gañe wut ñu koy fal parti yi ci nekkoon nag dañoo amoon kuñ proposé Macron Macron nag gannaaw ko moom kii la kii la mujj tànn waaye tey ñoom Jean-Luc Mélenchon su ma ko waxee xam naa da ngeen ko xam moo fi ñëwoon nekk ganuk Ousmane Sonko moom bokk na ci ñi jiite manifestation bi te nee nañ sax li ñuy tuddee motion de censure bi ñuy tudd ci Sénégal gii nee nañ ñoom danañ ko utiliser proposé ko ngir daaneel gouvernement wu Euh, monsieur Barnier mi waaw moom nag du du ko ndaw 73 ans la xam naa ne expérience a mag relation bu mu yàgg a def négociation yoo xam ne yàgg na ko def xam naa ci la Macron euh, sukkandiku ba ba waaye daal coow topp na ko ci nomination guñ ko nommé tànnagul nag gouvernement waaw moom daal lañ defagul euh, premier ministre mu remplace Gabriel Attal. waaye nag euh, tëbbagul kenn ko ku ma xam man ku ma gisagul ñu ne kii mooy ministre kii mooy ministre mais en tout cas tey ci samedi ji moom français yi waxoon nañ danañ génn manifester wu manifestation damaa xamul nag euh, jotaguma ci information yi liiraguma ko moo tax mënuma cee wax lu bari tout cas moom mi daal lañ tabbu mu nekk premier ministre actuellement bu France waaye en tout cas jur na coow waaw motion de censure bi ñu tudd fii ci Sénégal daal ñu ngi koy tuddaat fële ca France kon France Euh, coowul politique duñ ko tuddee crise politique quoi parce que coow yooyu ci diggante assemblée nationale ak pale yooyu yàgg naa am waaw di wax ne rek xam naa ne diggante Israël ak Palestine moom xam naa du ñàkk mën a tudd ba léegi ñoom ña nga ci seeni xeex euh, waaw Israël nag ma ngay continuer di bombarder waaye fan yi xam naa bu ngeen moytuwul Hezbollah daa mel ne mi ngi waajalaat beneen beneen beneen attaque yaakaar naa tey la samedi. mi ngi waajalaat yeneen attaque moom Hezbollah te kuréel gi kuréelu um, kuréel gi dénk wàllum santé ci àdduna bi nee na seetlu na ne daa am ay feebar yu am ca xale yi Gaza ya bëgg leen a ñàkk man nag loolu moom bëgg caa yóbbu ay ay ay garab xaw ma daal pour kii leen waaye man loolu moom dalut dalut dalut xel loolu moom ah, dalut samam mais en tout cas ah, ca Israël yi tamit ñetta ñaaw gën naa teengal ba léegi ma ngay teengal population bi ci information yi ñu ngi naan ñu ngi koy teg pression waaye li ma leen wax rek ay complice lañ ñoom benn ñooyam ci otage yi yi ñaan jàpp nañ ko mu jàpp daanaka yëfu complice la def attaques yi xam ne Hezbollah defoon na ko ca fan yële passé te mu nekkoon attaques yu daal sax boo gisoon israéliens yi état bi dafa menacé woon population bi ne ku ko ci wane danga am problème boobaak léegi amul lu fiiti moo tax des fois da ngay gis ci information yi sax ñu ne la bari na journaliste yu ñu rey journaliste yu ñu rey Israël la ko tey lenn waralu ko lu dul information yu ñu yore waaw information yi am na ci yoo xamante ne si ne dañ leen di rey jël seen i jël seen i denc ko xam nga ñoom dañoo aay ci wàllum technologie filtre xool lépp li ñu bañ ci biir guerre bi ak après guerre bi bugguñu da dara génn dañuy nettoyer waaw ñoom ñoom ci ñoom ci méthode boobu la ñuy dox waaye dañoo xamut dañoo dañoo xamul rek. waaw guerre bi am foofu boo xoolee diggante Russie ak euh, Ukraine la fa am moo gën a yéeme parce que Ukraine dafa def dafa dafa dafa dugg biir Russie Russie bàyyi ko ba mu dugg Russie ndar képp ko foofu massacré soldaar yam fa indi woon yëpp ci biir massacré boobu nag da cee bari ñoo xam ne duñ doomi Russie duñ doomi Ukraine ñii ay américain lañ ñii ay hollandais lañ. ñii ay euh, euh, royaume uni lañ dëkk ñii ay français lañ parce que ñoom li leen koy xamal mooy ko ci jàpp des fois am nga tubaab bi léegi dañoo xewal tatouage moo xam lettre bula sa doom di bind ak yooyu moo tax nag fii leen amut amul benn état yi ci fen seen population ci lañ nekk actuellement nii looloo waral njiitul telegram ba mu duggee biir France dañ ko daal di teg loxo takkal ko lu bari Elon Musk problème boobu la am. ba boo xoolee ci élection Amérique yi sax moom nee na Donald Trump lay jàppale ba keroog bi ñu jàppee PDG bu euh, Telegram bi moom da ko apporter soutien giso noonu la ñuy tegee pression ki nga xam ne mooy propriétaire bu TikTok waaw kon mi ngi noonu euh, ba tax na maanaam la nga xam ne mooy xew ca Ukraine ak Russie euh, Zelensky mi ngi yuuxu wàllu fu mu nekk mais fi ne gars yi dimbali sax mënatuñ ko ndax léegi ñu ci ëpp léegi seen bopp lañ tal. parce que Amérique fii nit ñi moom di génnee aide yu bëri dëgmal ay élection loolu day daaneel ab gouvernement boo xam ne mi ngi yàqal euh, kii nu ñu koy waxateeti euh, Kamala Harris digganteem ak Trump waaw loolu loolu lu ci lu ci lu ci lu ci mot a bàyyi xel la. waaw kon mi ngi noonu di wax ne daal ba léegi ñu ngi doon tudd fële passé Iran dana fayu du fayu ah, dana fayu nee na dana def nii nee na tekk ba léegi nii fayu amul waaye. boo gisee ci yenn ci chroniqueur iranien yi ñu bari des fois bu ñu wax sax dangay ngay déglu am na ci ñoo xam ne dañ naan Israël dafa dem ba ñaaw ci xare bi mu bëgg loo xamante ne si ne pour pour pour pour fexe ba fépp tàkk fii ne Israël bu sañoon fépp day tàkk bu ko defee moom ñaaw gi ñaaw ci xare bi mu xaw a wàññi ko tuuti léegi nag ah, on verra ñu xool parce que fii ne nii ci ay stratégie donc lañ nekk yooyu lañ ci doon am comme ay leeral. yoo xam ne danañ na woon danañ ko ci indi xaw nañoo gëj a wax nag ci actualité international bi mais nag noonu la ñàkk jot des fois da koy waral wala tamit ñàkk temps wala fàtte